ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core x ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. dafay xëy si woon tey indi ab euh, jàppam ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji Serigne Cheikh Awa Balla moom Serigne Moussa Bassirou boole woon ak moom ji waxoon ne bu ñëwee ñu dalal ko mu jébbali yi muy indi ñu ànd ak moom ñëw ci sëñ bi ànd ak moom ñëw ba ci sa kanam ñëw na nag ñëwin woo am solo bu mel ne moom ñëween Masalik ñëwee ko Poroxaan barki dem indi na fi la toll junniy tapis yoo xam ne tapis julli kaay la indi na fi lu toll ci fukki junni masque ci jumaa ji indi na fi itam juróom benn téeméeri butéel yi alkosel ak ay thermoflash ak ay ndox ak yu bari daal indi na ko joxe itam addi ba ju barkeeloo ko ci liggéey bi ñu ngi nii nag li mu indi wax si ñaa wax na ko léegi ne ko teg ko ci suñu loxo ñu jël ko lañ ci am ak seere jëf yi waaye nag Sëñ Tuubaa nga ko liggéeyal te Sëñ Tuubaa mooy fay Sëñ Tuubaa mi ngi ko liggéeyal nag yéen ñi yéen ko fi nekkal muy sëriñ bi ak yow mi nga xam ne yaay ay loxoom di léppam kon nag liggéey boobu mu ngi noonu ñu tegaat ko ci sa loxo mi ngi nii toog lu muy wax na ko waxal boppam la ci def nga war koo ci sëñ ba lañ jóge nii moom itam moo wax ne nit ñëw ba ci yow ñu jébbal la asalaamaaleykum wa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay eh, di la gërëm ci sa taxawaay di ci sa taxawaay Mbàkke Balla ci Sénégal ci àdduna yàlla may na ma ma tukkeendoo ak yow ci avion li nga liggéeyal Sénégal euh, defe na Sénégal xamuñu ko yàlla na yàlla oyofal yan bi ñu nag dañ fay ñëwoon rek ci ndigalu sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké euh, ci taw màggal gi euh, doxale taalibe bi ñu doon surtout que jamono jii ki fi toogal sëñ Bamba sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla may wér ànd gudd fan dafa am ay ndigal yu mu joxe te ñu dimbali ko ba taalibe yi ñuy soxey soxe te ku ci mën a jàpp ba mbas bi euh, mu dellu ginnaaw nga def ko moom lu mu diggalee digale yooyu nag Mbàkke moo tax biñ ci taxawee ba léegi euh, li ñu defoon Poroxaan def ko Masalikul ci ndigal nag nag nag ak ci ndimbalu sëñ Awa Balla ak ak kër sëñ Tuwaay waat niñ ko yaakaare woon rek ne biñ ko fi defee ci taalibe euh, ci dimbali sama mbokk taal bi fi téyel sëñ Touba euh, moo tax ñu ñëw ak indi euh, li nga xam ne yaakaar nañ ne euh, dina àdloog li kër docteur wax ndax ñoom ñun loolu la ñuy liggéey it si kër docteur lañ nekk ci diñu jàngal université moo tax ñu indi fii xeeb nañ ko loolu nag Mbacké ñu indi fi fukki junniy masque yoo xam ne yaakaar nañ ne ku ko takk moom di nga am masque bu masque bu baax ci ci bi indi nañ fi tamit sijaada ñuy jullee junni sijaada yoo xam ne yaakaar nañu it euh, dina dimbali jaam yi nga xam ne euh, bëgg nañu am sijaada wala ñu respecté distance yi ñu ko tuddee te defuñu ko. li ñuy raxase loxo yi si muy gel indi nañ ci juróom benn téeméer indi nañ également thermoflash yi nga xam ne ci bunt boo gis euh, fa lañ ko war a teg pour xool ñan ñoo amee tempér fièvre yaram bu tàng indi nañ ko. indi nañ aussi sunu sunu ziar sunu sunu sunu ziar ci ci ci ci ñi fa toogal taalibe yi ci ci ji Euh, ndax ñoom li ñu fiy liggéey ñun lañ koy liggéeyal moo tax ñu jox leen suñu siyaar ci ci liñ ci man ci ab koppar ku tuuti euh, joxe ko nag ci ab taalibe rek di wax ne ñu leen di sant bu baax sëñ Tuubaa moo ñu mayoon ñu yóbbu ko Masalikul moo ñu mayoon ñu yóbbu ko Poroxaan moo ñu mayoon ñu yóbbu ko feneen te moo ñu dimbali ci kàttanam bañ ñëw fii indi ko fi te xam ne moom loo ko lebal loo ko defal rek mu fulal la ko te sant nañ ci wér. te di leen joxaat suñu bopp wax ne la daal lépp lu ngeen yaakaar ne Mbàkke yoon bi noonu la jàppale ne ñun sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal yéen la ñuy liggéeyal yéen la fi toogal ñun daal ñi ngi fi wax leen ñu ngi fi fu ngeen ñu wax bunt bi fu ngeen ñu wax yoon bi foofu la ñuy topp Mbàkke Bàll waaw jéggalu trop nag ci kàddu ñu jël parce que di woon cër sax ñu jël kàddu wala ñu toog ñuy ànd ak yow Mbàkke ñu ngi koy jéggalu bu wér dafa nekk ne protocole la rek mais ñu ngi koy jéggalu bu wér ci toog bi ñu toog ci kaw ak ci kàddu rawatina suñu ñaari mbokk yi ñu àndal di sëriñ Abdul Ahad Bousso moom Baye sëriñ ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Maxtaar ak mboolem ñi nga àndal lépp bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di fii sëriñ Tuubaa waaye bàyyi ko ci sëriñ bopp sëriñ Cheikh bu Balla di suñ lépp nga xam ne suñu diggante moom ñëpp xam cofeel di dox ci sama digg moom ak kóllëre bu yàgg mu yàgg ma laa tudd lool nag di wax sa taxawaay ci réew mi wax sa xam-xam li nga xam ne tawfeex la ji la suñu borom defal di ndimbal muy loo xam ne itam ndamul Sénégal la waaye ndamul yoon kon lu yàlla defee nga ñëw fi tey dañ koy rafetlu bu baax rawatina nag fee nga jaar ci jumaa ji nga xam ne mooy fii ñi gën a daje di fi gën a ñor Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi jëfal da koy loolu moom li la jëfal teg ci boppam te fay bi ci loxoom rek kon la ñaan ko dañuy taw ak ngërëm kon ñu ngi rafetlu tànk yi di rafetlu jiw bi nga xam ne yaa ngi koy def ci biir Sénégal yëpp ngir ci wàll bu yëg-yëg rawatina ak xam-xam bi nga xam ne suñu defal la di ñaan xam-xam bi daal gën ko yokk mu gën a leer ñu gën a jëriñ Sénégal bu baax ñu ngi sant bu baax di gërëm di rafetlu taxawaay bi jëf ci ak lii nga jëfaat tey ngir eh, def ko addee bi ñu jëm ci màggal di xam ne guddi ko ci ñu koy wax duñ ci yokk duñ ci tàyyi di ko jëf ngir jënd seen tubaab waaye ki ñu liggéeyee moom am na ak yàlla na leen gën a taxaw gën a sàmm ba di ngeen koy liggéey lépp rek